sa bopp sax wóorul sa xarit wax dañ naan xarit amatul. Mm-hmm. yenn euh, amin wax li ko waral mooy film yi la nga toog nit nekk pour euh, pour biir ne nga jékki-jékki xëy xëy gis ko ci réseaux sociaux yi xëy na man ngeen wax la ngeen wax yéen ba ko mën wax yow moom ak suñu borom rek xëy gis ko ci euh, internet bi gis ko képp daal ñu tas ko oustaz mu mel ni daal loolu xawi sutura waaw muy lu ñaaw mm-hmm. xawi sutura maanaam yéen ñaar rek a doon waxante kenn fekk la dem ba ñetti jot oustaz loolu moo xam ak li ngeen mën a digaale seen biir Euh, loolu nag dem na ba nga xam ne ku ci nekk daal booy dox sax wóoluwul sa morom da ngay ni sax mën la baa enregistré wu ma wala baa ah, laa filmé man nag danaa la wax loo xam ne danga naan téléphone ba tawaj benn kilifa bu mag ci réew mi daawaati jéeg am ku ma rëb a jéeg ñoom woo ma ni ma waaw dégg naa rek waaye la ma ko wax dama ko ne bu jant bi fenkatee rek la ma ca teg mu ne ya xanaa doo sëriñ ma dóor beneen mu ne xanaa xamoon ne kilifa laa ma dóor beneen mu ne enregistré naa naa la porté plainte <laughs> dana ko seetaan booba la ma ba de man taalibe laa taalibe laa du ma xalel man ay da ngeen defe di yoot fi ñu naan la oustaz yeneen tvéericlier tvéericlier di <laughs> man yootuma yuutuma <laughs> defante rek maa ngi yoo xam ne bomb bu ma la ci dóor. nga bàyyi àdduna baatu. am na waa yoo xam daf ne est-ce que sax kii Iran la. Hmm. mu ma ne ma sa waay kan laa jot Iran la wala kan ma ne ko mana rek hmm. dolli ko bu gën a tàng. gis nga ñii wéet di wax safaan ñoo ko def lu may wéetee di wax safaan lu may wéetee di tëral leneen. mais naa wéral rek bëri na loo xam ni Iran la ndaw su dul sama jabar du ma jëkkëram ñuy wéet ma ak moom ma summeeku ba ne wéyal mu summeeku bu ne wéyal nekk téléphone bi mu teg mu ngi filmé ñu pare mu envoyé ma ko ne ma boo joxul temps ma siiwal la mais duma ko ne yaa bon dama ko naan maa bon nit ñi ñoo war a bàyyi wéet def safaan mm. wéet di wax safaan dañ koo war a bàyyi lu ko fi jaar dara jaru ko fi mm. aussi Serigne Cheikh dafa waxoon lu am solo dafa waxoon ni bëgg sama der bi set du ma tax a deru góor lu ma waaye waxal ma accepté ba yowmal xiyaam waaye lu ma la xamal du ma la ko wax mukk ndax damay xalaat ne jaamu yàlla te su may wax ci yow xam naa ne yàlla ngi seet kon ma bàyyi nga wax ci man mu ma gënal ma waxal la li ma la xamal mais nit ku baax noonu ngay mel léegi montre yi sax day day big yi day filmer montre yi di enregistré big di enregistré chaîne yi sax palaat yi day filmer da koy sol nii nga tëdd mu tiim la ceen gi la nga fekk mu ngi filmer li ngeen def maanaam njaaloo gi ngeen def lay fi su paree da koy réglé envoyé la ko rek nga ne la ilaha kii de man iran nga ne la vingt millions baa ma yóbbu ko ci internet bu ko mën a lijjantee danaa ko jox dinaa ko ko jox nañu bàyyi wéet wax safaan mm-hmm. nañu yemale wéet ak wéttale ko su ngeen demee ngeen consulter net bi dama daan wax ne bàyyi leen téléphone guddi yi bàyyi leen ojo yi bàyyi leen réunion yi te ngeen wax lu leer yëf yàngu ngo yëf yaa ngo gis ngeen nit dafa matam moytu bàmba xam nga tax bëgg bàmba fii la ñuy xamee nit ak fii est-ce que dugg nga ci xelum aadama duggoo ci xamoo lu muy xalaat est-ce que dugg nga ci xolam xam nga lu mu la ci ëmbal daan na ko nit dañ koy moytu waaw parce que moo gën a garaaw corona ndaw si ki ko si dama lay gis si site yi naag te xam nga góor ñi dañu dañu faible na jigéen ñi wax télé wala mu nekk journaliste ah. wala mu nekk site yi baa mu nekk ministre mm-hmm. baa muy député am benn ti benn maa takk diw mm-hmm. yéen a ñàkk fayda yéen ñi ko def mm-hmm. ceem ña lay dikkal di la seet si ne xamal ne aadama ñëw na waaye lu ne ci xelam ba mu ci man mm-hmm. lan la yéene ci xolam ci man nee ñaari dara leeru ma ci nee kon naa ko daan nit dafa mat a moytu mm-hmm. nit nit kenn ko xam mooy yàlla mi ko bind xam na ci moom lu mu xamul ci bopp ak nit ci boppam honnêteté mi yeggul mu wan la lii dëgg yeggul ci mu wax la lii dëgg xam nga ni lu muy wax di ko arrangé xam nga lu muy def di ko arrangé lépp lu ko dul arrangé da koy nëbb yàqooloona mooy bi alsinati maa lay sa fi qulubi li ñu lay wax bokkul ak la ñu naar ëmbal nañ fi jigéen ba tay te wax ko wax lañ ko naxee hmm. ëmbal nañ fi jigéen ba tay wax lañ ko naxee takk nañ fi jigéen ba tay ki ko takk ne ko yorul dara wax la ko naxe hmm. am naa kër sali la am benn hôtel sali lan mooy sali sali lu mu tekki duy tus ni tey sangu lépp wala xadd karam na ay doomu aadama yi sangu oto kër ak avion zéro ponkal ñi pire mooy yàlla takk nañ jigéen ci ay fen ci ay fen góor ñu bari takk nañ jigéen ci fen takk nañ jigéen ci mu wor jigéen ju wor jël ay kàpp xam nga kàpp mooy forme taat yooyu ñuy def ci ndigg bi mu mel ni ci yow la bokk dalay dolli waŋ ngay biiju ci xew mi rek mennum yàmbar sel la ku mel ni aadama rek naan soo booy ni muy doxee fekk waŋ te xamul lu xew déedéet waŋ monte <laughs> waaw ah, ah waŋ monte nga dugg ca ba takk ko ngeen di tëdd mu denc ko ci armoire ngeen tëdd fekk fa zéro bu raasee ni am nii léegi nag si xel li ngay xalaat mooy kii li ma gisoon ci moom xam nga mhm. doo mhm. booy bi gisoon naa mu wàll ana wàll bi mais mais ana wàll booy bi xel mi léegi foofu nag dangay ngay yoom doo koy doon góor. parce que la la doon def góor. dañ na <laughs> xalaat bi la jàpp ba nekkatoo góor. Mhm. fekk mu ngi ko wor nga mm-hmm. bu la fase yaa faselu sa bopp mm-hmm. nit ku baax dafa dëggu mm-hmm. boo wéetee dëggul soo wéttali ko dëggul xam ne foo ne yàlla mooy solo bi bi ci des itam weerante baaxul inna alladina yuxibuuna an tachaa alfaxishatu في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة yàlla nee na ñi nga xam ne bis bu ñu xëyee ñu ngi seet lu ñu wax ci réseaux sociaux di ko waxal gor ci lu ñaaw sunu borom nee na bala ñoo dee torox te buñ dee ma lakk leen jël leen bala ñoo dee torox buñ dee ma lakk man nag lu ma waay wax du ma la déglu man damaa tëx damaa lu damaa seen wax man duma seetaan duma déglu duma ŋaan te lu ma leen wax da ngeen ko dégg man nag maa leen may lu leen neex lu nit wax ci man lu bon teg leen ku wax ci man lu baax bu leen teg ndax baaxuma bu leen lu ngeen dégg ci man ak mbaax bu leen ko teg baaxuma lu ngeen dégg ci bon noonu laa mel teg leen ndax ngeen am xaalis balaa ma sax yee lekk lekk leen ma